Adama Ndione ci kaddu gi mbokk yi ñu daal di koy dooree ak cadre unitaire syndicat ñi yëngu ci wàllu dem ak dikki bi di transport routier euh, tegaat nañu beneen grève bi nga xam ne ñu ko sax app ndax jàpp nañ ne seen i euh, waxtaan yi ñu waroon am ak ministère bi leen ëmb dafa daal di nag lajj seen i nag responsable euh, syndicat yooyu ñaawlu soofantal bi nga xam ne état bi def na ko ci seen i ñaxtu ba tax ñu jàpp ne département ministériel yu bari ñoo waroon teew ngir daal di saafara jafe-jafe yi ki yoro seen kàddu di Pape Mamadou Ndiaye ñu déglu ko. li jëm ci grève bii na su ñu bëggee libérer askan wi président de la république bi nga xam ne moom la ñëpp votaloon ñu jox ko suñu réew am ci moom confiance bu fekkente ne respecté na askanu Sénégal warul toog 48 heures di seetaan lii élèves yi kenn jàngiwul te responsabilité bi nekk ci moom ak ay ministère am moom bu ñu mënta recevoir ministre bu mu doon ci ñoom préavis bi nga xam daf la concerné ministre bi yooyu nañu toog mais lu ñu mënul accepter Mansour Faye mënul jël responsabilité six ministres yi fi nekk yépp parce que moo ko jëloon boo demee ci yeneen corps yi la naan Mansour Mansour Faye yilifuñu donc comme Mansour Faye yilifu leen na tey yàlla indiwaat grève bu gën a pire boobu ñun li ñu soxla mooy les ministres concernés yi nga xamante ni ni préavis de grève bi ñoom ñu ngi ci biir ñooñu la ñu bëgg a toogal ñun ak ñoom ñu négocier préavis bi sinon ñun préavis bii ñu teg grève bi ñu nekk nii askan wi nekk ci base bi yàkkamtiwuñu parce que téye nañ leen fi trois mois ci Covid lekkuñu naanuñu kon ñoom préparé nañu pour toog fii ci réew mi ba keroog ñuy am gain de cause suñu diggante ak état du Sénégal ñuy wax askanu Sénégal ni leen ñun ñu ay saboteur encore une fois amuñu benn intérêt ñu fi toog ñëpp suñuy doom a ngi toog jàngiwuñu amuñu intérêt boobu mais nag nañu xam ni ñun suñu outil bi nga xamante ni mooy suñu outil de travail mooy grève ay ay mais grève wuñu pour saboter dañuy grève ngir défendre suñu suñu suñu cause ci wàllu transport sport wallahi azim président bu fi falooti dinañ impliqué ci biir tafalu googu wala buñ ci impliqué wul doo nekk président de la république fii ci réewum Sénégal ñun ak suñu njaboot yëpp pare nañu pour loolu kon li ñuy yëgal askanu Sénégal mooy nañ xam ni ñun téyewuñu grève bu neexoon état tey ñu ànd bu bëgg dimbali askanam tey grève bi mën na mën nañ koo lever tey tey tey tey mais c'est pas nous pour mu leer askanu Sénégal ñu ngi maintenir nag suñu position fii ak état dañu woo ànd ak seen ministère ñu ngi leen di déglu pour pour kilifa diine yeeg ñi koy dégg ñëpp ñu xam ne ñun saboté suñu droit absolu ci lañ nekk di ko kaas euh, accord yooyu jëwriñ bi ñu dénk wàllu transport daal na ci rek àddu moom ministre Mansour Faye moom daal jël na acte waaye nguur gi ñu ngi daal di def seen kem kattan ndax bi lay jafe-jafe ñu daal di koy saafara ñu déglu kàddu yu ministre Mansour Faye ci micro Adja Ndeye ñoom dañ duñu ñëw te ñëwuñu di wax nag gouvernement bi maanaam gis na ni cadre bi nekkuñu ci taxawaay waxtaan te loolu ñu ngi koy maanaam déplorer wane leen pour ñu waxtaan nanguwuñ ba fi may wax ak yéen nanguwuñu ñëw pour waxtaan ci mbir mi nga xam ni moo fi nekk indi jafe-jafe ci dëkk bi démb conseil de ministres président dafa joxe instruction ministre yi nga xam ni ñoom la concerné surtout ministre des forces armées ak ministre de l'intérieur ñu pour ñu gisee bu ñu paree conseil ba ñu paree conseil ñu dem daje ci bureau yi nga xam ni moom la ministre des forces armées yore fële ca plateau ñu waxtaan waxtaan waxtaan bu bari pour mën a trouver ay solution ci waxtaan yooyu lu ci génn mooy dañuy maanaam ci corridor yi su ma jëlee exemple corridor boo jógee dakaar dem Bamako corridor la UEMOA dafa am ay règle yu mu fixé ñu ni léegi corridor bu nekk ñetti poste de contrôle routier moo ci nekk bien que xam nañu Sénégal ah maanaam dëkk yu ko wër dafa bëri jafe-jafe terrorisme baa nga fa ah wóorul waaye dañuy chaque corridor dañ fay def trois postes de contrôle tey jii boo demee ci corridor Dakar Bamako boobule maanaam commencé ñu mettre en application loolu contrôle yëpp wàññeeku na d'ailleurs pour wax joo ñuy wax engagement boobu ñu jël ñu mën ko tënk ci këyit am na benn arrêté ministériel boo xam ñu ngi koy defar te dana pare lu mu yàgg-yàgg dana dana dana teel a pare te ministre yu mu concerné yëpp daañu signé arrêté interministériel boobu ministère de l'intérieur dana ko signé ministère des forces armées dana ko signé ministère donc euh, maanaam des euh, des finances budget ak finance dana ko signé ak ministère des collectivités territoriales dana ko signé suñ ko signé maanaam arrêté interministériel boobu ñëpp lay engagé ñu daal di desandi ak Mansour Faye ci li nga xam ne nag xew na ci grève boobu ñuy oto yi ñuy faral nag di euh, yàqate ne ñu daal ay sanction di daan nañ ko daal di teg ci ñuy def jëf ji ni mel ministre Mansour Faye ba tey ñu teewlu ko Kaja Ndeye Mariam Ndiaye nag vraiment di regretter conséquences yi nga xam ni grève bi daf ko indi ci économie dëkk bi ci koom-koomu dëkk bi euh, loo xam ni lu diis la de di montrer suñu solidarité di naqarlu mbir mi bokk naqarlu bi ak population Sénégal nga xam ni grève bi yàqal na leen lu bari te grève bi mënoon na bañ a am en réalité man gëm naa ni mënoon na bañ a am bu fekkee defar dong moo ñu tax a jóg bañ a am donc loolu ñu ngi koy naqarlu waaye nag di wax ni kat am na loo xam ni duñ ko seetaan. parce que gouvernement dafay condamné maanaam yàq-yàq bu am ci dëkk bi ñu jógoon pour liggéey ñu toj seen ay oto jël saccagé ay kaaru ak ay bisu Dakar Dem Dikk loolu état bi daf koy condamné fermement te mënu ko seetaan képp koo xam ni dafa bëgg liggéey war ngaa mën a jóg dem liggéey ku bëgg a grève droit consacré la bu la neexee grève waaye mën ngaa grève bañ a tere ku bugg bugg ba noppi bañ teree tere ku bugg liggéey mu liggéey parce que nu nga amee am droit grève noonu nit ki amee droit dem liggéey bu buggee liggéey donc grèveal sa grève booy grève te nga bàyyi ku bugg liggéey dem liggéey loolu nag gouvernement bi dana jël matuwaay bu mat set pour képp koo xam ne bugg na liggéey mu dem liggéey te loolu aussi bépp kuréel bu nekk ci biir état bi moo xam ne service la wala gouverneur wala préfet wala sous-préfet wala maanaam force de l'ordre yi ñu jël matuwaay yépp pour képp koo xam ni bugg na dem dëkk moo xam ne liggéey wala doxi soxlaam mën ko def en toute sécurité et en toute liberté donc état bi comme nu ma ko waxee léegi dañ jël matuwaayam yépp pour que dëkk bi mën a tourner euh, comme nu ma waree te état bi dana jël ay responsabilités pour loolu mën donc di gërëm bu baax di leen sant. ci ponk wax sa xalaat bi dinañ ci daal di addu état bu senegal nag euh, la mu ñàkk euh, ci ñaari fanu grève yi téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari milliards ci suñuy koppar. Euh, lu mooy perte nag yooyu ci wàllu koom-koom gi am na yeneen i dégâts yi nga xam ne mbir mi daal na koy rek def njàngatu Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly moom mi daal di nag joxar bi baaraam kii di njiitu réew mi wax ne euh, deful benn jéego ngir daal di saafara bi lay jafe-jafe moom député bi bokk na ci euh, commission yi yore wàllu transport ci assemblée nationale ñu teewlu ko ci micro Amadou Moustapha Dia. loolu grève wax nga xamante tey dañoo grève depuis ñaari fan mu métti lool ci askan wi ñu taxaw tey doon wax def waxtaan juboo amu ci kon li nga xamante mooy njiitu réew mi na leen woo dalal leen ngir Sénégal yi coono yi ñu doon jànkontee ñu génn ndax ku ne xam na ni ñaari fan yi milliards perte nan ci ay ressources yoo xam waroon dugg muy ñi nga xamante dañu war dem liggéey liggéeyuñ ñi nga xam dañu war jënd carburant ak li nga xamante tey ay soxla a moom lañ perte ci li nga xamante moo jël si mbirum humaine dafa bari bari waay goo xamante ni moo a jël ay responsable xam ne ñi mu dénk mënuñu mu jël jëf yi boppam pour soxla jafe-jafe askan si bàyyi lambar lambarum ju bari ji muy def nii ndax seet na ni soxla yi askan ñuru ko ba yi ñuy wax assemblée nationale sax bari na si loo xamante ni daanaka dañ koy jàll ni rek nit ñi di ko wax mais dëgg dëgg dëgg ki nga xam mooy njiitu réew mi ndeyu mbil gi moom moo tax war a taxaw taxawaay bi mu war a taxaw ñoom bi ñu déclaré dañuy grève léegi mais yàgg na lan nga gis ñu def ko si ñoom ko si ban tàmbalee grève démb am tey am ku ne si ay doom yoo xam dañuy war jàng ak ñeneen na ñeneen ñoo xam dañuy war liggéey te ñoo ñëpp amul moom mu toog maanaam ci palais bi yëg loolu ni mot maanaam kenn xamul comprendre dalal ñi nga xamante ñooy transporteurs yi wax ak ñoom saafara seen jafe-jafe ndax ku ne xam na ne jafe-jafe yi ñu am dafa tënk juróom ministre ba ministre force armée bii nga xamante ni moo doon jàll léegi bokk na si ñi nga xamante ni bokk si ñuy saafara loolu mais ban ministre temps yi après euh, incha allah ñu indi ko plénière mardi ak mercredi pour ñu jàllale ko mais premier ministre dafa war a taxaw ngir bu lu mel ni amatee mu mën leen a dalal convoqué ministère yi nga xamante ñoo yor mën a saafara li nga xamante ne mooy jafe-jafe askan wi ndax askan wi sonn nañ Euh, ci la ñuy daal di nag desandi ba tey ak euh, li nga xam ne mooy rëq-rëq yi grève boobu daal di nag indi chauffeur yi ak transporteur euh, commerçant yi ba ci béykat yi fare PKS ca département bu Tivaouane ñoom itam mer nañu ci bile grève ndax gis nañu ne tax na amuñu gisuñu benn client bu bàyyi ko ci biir réew mi daal di nag ñëw ci seen marché luuma bi ñuy daal di amal alxemes bu jot ba tax ñu ngay interpellé njiitu réew mi ngir mbir mbir mi daal di dakk coon Dieng porte parole nag Eh, commerçant yi transporteurs yi chauffeurs yi ñu teewlu ko ak eh, Babacar Sow. li xew ci réew mi ne président de la république génn wax man maa ngi nii marché Pekes nga xam ne marché hebdomadaire la bopp ay junniy junniy junniy nit a fi daan daje ñii di jënd ñii di jaay kenn ku ne for dara yóbbu sa kër fii mu ne nawet amul ñoo ngi nii nit ñi débrouillé ci seeni sareet ba indi seen gerte as ngerte wala ñebbe wala dara pour jaay ko yóbbu seen kër gisuñu kenn ku ñu ko jaay ak Kaolack ak fu ne di ñëw ci marché hebdomadaire bi di wut lu jënd lu ñu yóbbu jaayaati gisuñu kenn réew maa ngi toj président Macky Sall na génn wax ak ministre bi yore mbirum transport transporteur yi kom dañoo sonn sonn nañu kuy bëgg a dee nag wéqu réew mépp nag a maa ngi nii ci marché tekkes man militant APR la mais li xew bu ci président Macky Sall jógul fa mu jëm baaxul wata demul wata dikul nit ñi demuñu dikkuñu kenn amul loo jaay jënde dund na ci président Macky jóg woo chauffeur yi wax ak ñoom woo transporteur yi wax ak ñoom lii tangam lug yuuf muy sa gog rek lay doon lii ñaaw na lii metti na trop na ci jóg na président Macky Sall jóg wax ak ministre bi yore mbirum transport wala mu teg ko le wax ak transporteur yi directement réew maa ngi toj Macky Sall nag xëy na yegu ci dara ñu daal di desandi ci grève boobu ak wàllu koom-koom bi mu gaal di gàllankoor lu bari ci réew mi commerçant yi ñu dajeel ca marché Grand Yoff daanaka benn baat bi la ñu daal di nag wax ñu ngi dund lu jafe jamono jile constat beeg Fatou Dieng Ndiaye. transporteurs yi seen grève bi laal na njënd meeg njaay mi loolu nag commencé na jur njàqare. amoo moyen de transport amoo dara nga ñëw ba fii aussi clients aussi bu ñu amul li lay indi aussi. dañu toog seen kër a pour pour bi nga xamante ni ci boutique bi la xam nga lool moom baaxul ci suñu économie baaxul ci suñu. affaire yi moom tar na trop moom ndax instant bi dem ak tey gisuñu client ndaxte client yi bu ñëwee bu ñu jëndee bagage ñu am taxi mu yóbbu leen wala ñu bu ñu ñëw ñu jël xanaa tata wala dara mais instant bi nii ndaxte bu bu ñu jëlee bagage amuñu lu leen yóbbu du ñëw moo tax instant bi soo léegi ñu ngi nii ñu ngi gis nii. Demba Sall moom jaaykatu diw la mi ngi woo rek ñi ko séq ñu amal ay waxtaan. ngir ñëpp man cee gis seen bopp. maa leen di interpellé pour ñu waxtaan aussi trouver terrain d'entente ku nekk daal na jéem a wàññi li nga xamante ni moom peut-être bon tiraillement yi aussi ñu jëm koo wàññi ba ñi nga xam dinañ trouver terrain d'entente pour ñu mun a juboo au grand nga xamante ni ñooy commerçant yi. ak euh, sur le plan social daal de manière générale daal. dafa mel ne seeni jafe-jafe narul yam fii koom-koom bi itam dina gën a sooxe ndax dawalkat yi lee yokk nañ. seen fanu grève Euh, tax nag ñiy taxaw way consommateurs yi di ci daal di àddu ci euh, mot d'ordre bu bees boobu nga xam ne amaluñu ko àpp euh, nee ñu daal waa ASCOSEN jàmp na ngir ñu daal di koy saafara waaye itam doxalin bi nga xam ne syndicat transport yi def nañ ko daal na koy ñaalu ndax ña représenté woon ministère yi ñëwoon ngir ñu waxtaan mënoon nañu door lii di waxtaan week ñoom vice président bu ASCOSEN di artu nag opinion bi tey xam ne ne nguur gi na daal di taxaw bu baax a baax ci ñu bëgg a liggéey bañ dem grève ñu daal di assurer seen kaaraange Momar Cissé vice président ASCOSEN ñu déglu ko. syndicalistes yi def nañ seen démonstration de force. ministre yi woote nañu. seen ministère de tutelle ñëw na. ministre bu nekk envoyé nga. sa nit mu représenté ànd ak ànd ministère de tutelle donc ñoom waroon nañu nangu ñëw ci table de négociation bi mais coono bi ñuy teg askan wi ñoom dafa mel ni faale wuñu ko ndax bu ñu ko faale woon ki nga xam ne mooy représenté ministre par exemple Euh, des finances muy la douane ki nga xam ne mooy représenter les eaux et forêts ñëw na ñoom ñëpp parce que transport dafa seen revendication yi dafa laal lu bëri te ku ci nekk yebal nga sa ndaw ndaw moomu mat na jëmm ministre bi ko yebal donc munoon nañoo dem te bañ demander rek ne foog juróom-ñaari ministre yëpp teew te itam situation boo ko xoolee jakartamaan yi charrette yi naam ñu ngi remplacer kii lu mataluñu dañu ciy profité plutôt nit du nekk ci askan wi sonn trop nga di ci profito ñu leen di ñaan ñu woyofal seen loxo revendication yi am na ay points yoo xam ne am na ci ay avancées positives am na yu des na am mais nag lépp ci concertation lay mujjee ñi nga xam ne dañu bëgg a liggéey ñu ngi leen laaj état ñu mu assurer seen sécurité parce que am nga droit dem grève mais ki nga xam ne day liggéey aussi am na droit dem liggéey man ragaloon naa ne syndicaliste yi am nañu responsabilité ba nga xam ne xam nañ ne ki war a dem grève mën na am droit dem grève mais ki war a liggéey war na liggéey ki bëgg a liggéey nag na état assurer sécurité bu boobaa jàmm na ñooy. grève boobu coalition Yewwi Askan Wi daal nañ ci rek yey yàbb yi ne ñu du dara lu dul échec euh, politique bi nga xam ne nag gouvernement bi mu ngi koy daal di doxal ñu ci masu askan wi te sàkku ci gouvernement bi mu daal di saafara li ni mel nu mu gën a gaawee Malick Gakou bokk ci coalition Yewwi Askan Wi ñu déglu ko. te li ngeen gis démb ba léegi ne transporteur yëpp taxaw lu yàq réew mi la lu yàq koomu réew mi la lu yàq yokkute Sénégal la loolu tax. ñun ñu ne lii nga xam ne nii moo am day wane rek woyofal bi nga xam ne nii moom la gouvernement bi woyofal ak ak yelleefu askanu Sénégal te loolu du ci transport bi rek ci pàcc boo laal rek ci li nga xam ne nii dafa jokkoog askan bi li mu soxla gis ngeen ne gouvernement bi daf ci échoué daf ci lajj loolu moo tax d'ailleurs coalition Yewwi Askan Wi taxaw pour jël réew mi tabaxaat ko ci anam bi nga xam ne nii moom lañ ko Sénégal yi bëggee muy anam bi nga xam ne nii mooy taaral secteur yi nga xam ne nii mooy jëmmal askanu Sénégal ci li nga xam ne moom lañ soxla ci jumtuwaay pour jëm kanam loolu moo tax ñu ne gouvernement bi na jël ay matuwaayam toog ak transporteurs yi waxtaan ak ñoom ba la ñu soxla ñu am ko pour que fi ak suba dëkk bi delluwaat ci jàmm transporteurs yi mën na liggéey askan bi war a mën a am jàmm jàmm ji nga xam ne buñ ko amul dara du mën a dox ci réew mi. ginnaaw bi ñu delloo nag manifester suñu solidarité ak suñu soutien au monde des transports dina wax ne Yewwi Askan Wi ñu ngi seen ginnaaw ñu ngi naqarlu lii leen naqari ñu ngi leen di jàppale. ñu ngi leen di massawu ginnaaw bu ñu massawu sénégalais yi di taxaw seen wet di ànd ak ñoom pour que lii ñuy xeex ñu am ko ngir jàmm Sénégal ngir jàmm Sénégal euh, ci la ñuy daal di nag euh, desandi waaye Yewwi Askan Wi ak euh, mbirum Djibril Ngom bi nekkoon nag seen mandataire te dawoon nag seen i liste yi kooku njiitu réew mi daal di koy dalal tax ñu jàppee ne mbir moomu haute trahison la dina ñu jébaane nag njiitu réew mi ca haute cour de justice jaare ko ci assemblée nationale président bu parti Pastef daal di ci yàbbi moom Ousmane Sonko jàpp justice bi na muy doxe Dieng def ci daal di am ñu déglu ko. ëllëg dinañu lancer pétition ñu ñaan Sénégalais nañu signer pétition boobu. pétition boobu li tax ñu koy lancer mooy pour que ñu saisir assemblée nationale d'une demande mise en accusation kon ñu ne dinañ ñaan sénégalais ñu signer pétition bu ñu ko signer ba dajale ko dinañ ko def en ligne waaye dinañu am suñuy ndaw yuy wër yor ko dem fépp ci gare routière yi ci marché fu ne ñu signer ko bu ñu ko signer ba noppi dinañ saisir assemblée nationale. ne leen Macky Sall dafa wor dafa def haute trahison dañu bugg ngeen def une procédure de mise en accusation fa may daanelee nag mooy euh, ñàkk yemale ak ñàkk tollale bi am ci dëkk bi il faut mu jeex gis ngeen kaawu kilifa gannaaw bañ ko piégé parce que dossier bi poursuite sax waru ci yoon am yónni ay nit ñu yor ay caméra di enregistré ay nit loo xam ne ci biir oto ci biir néeg et cetera waaye ñu piégé ko ba jàpp ko ba tey ñu ngi koy ñu ngi koy teg lu métti métti njabootam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 ak publication de données à caractère personnel soo demee ci loi bi ko régir moo gën a grave foofu parce que minimum dix ans d'emprisonnement la <laughs> ba tey waa coalition Yewwi Askan Wi nag wax ci wàllu euh, préfet ak yi li jëm ci seen nag euh, validation list yi nga xam ne yoon joyanti na ko ba léegi daal ñu jàpp ne ñu ngi leen di euh, tànqam lu tax ñu ne mbir mi du fi yem ndax dañoo bëgg a éliminer ñu bari ñi fare nag ci kujje gi kii di Déthié Faye yëkkati jëtti Déthié Fall bokk ci coalition Yewwi Askan Wi itam jàpp ne seen xeex boobu duñu ko daal di ca dettu gannaaw ñu déglu ko et ba fii ñuy wax ak yéen gox yu bare loolu moo tax décision yi kenn appliqué wu ko loola di wane encore une fois taxawaayu président de la république Macky Sall pour éliminer ay liste Yewwi Askan Wi comme ni ko waxee nekk di def une compétition hors urne avec le ministre de l'intérieur bi nga xam ni moo war a organiser ay élections yu libres et transparentes ki nga xam ni moo war tëddee njaaxanaay diggante opposition ak pouvoir kooku moo engage ay recours ci préfecture ak sous-préfecture pour éliminer ay liste opposition ba tax na fii di département de Pikine ba fii ñuy wax ak yéen le préfet refuse d'appliquer la décision de la cour d'appel boo demee ci commune de Fass dem ci commune de Gandiol le sous-préfet refuse d'appliquer la décision de la cour d'appel boo demee ci commune de Nondol commune de Lambaye la même chose boo demee ci commune de Médina Sabakh la même chose Matam c'est encore plus grave et loolu on y reviendra tout à l'heure pour dire que le président Macky Sall mi ngi yóbbee réew mi ci situation bu doy waar situation bi nga xam ni Yewwi Askan Wi nekkul pour di ko bàyyi mu jàll nekkul ci disposition wu sëgg muy tànn fan la sëgg ak moom ak fan la ñu dul sëgg ak moom. Euh, ci loolee sax coalition euh, Yewwi Askan Wi eh, di xam ne ne ci euh, bataaxalu Barthélémy Dias ne ci seen élection locale yi ki nga xam ne nag mooy Abbas Fall coordonnateur départemental Pastef Dakar moom la ñu fal mu nekk directeuru campagne bi ci élection locale yooyu ñuy amal 23 janvier 2022 ñu desandeek élection locale yooyu lee ca diwaanu nag Tiwaawan ak kuréel googu di AD te nekk allier bu am solo ci cadre bu APR ñoom na nag euh, mer ci wàllu investiture yi la ñu daal di nag def coalition boobu nga xam ne euh, kii di Ablaye Ngalgu moo ko daal di jiite Tivaouane Babacar Sow. jongante xëccoo léegi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum 2022 coalition ànd defar Tivaouane bu Abdoulaye Ndiaye Ngalgu daal dina dalal allié bu mag a mag muy Farba Sall bi nga xamee ni cadre la ci APR waaye itam bokk ci militant yi jëkk bu président Macky Sall ci dëkk bu sell bi suñ sukkandikoo ci Farba Sall lu mu yee yàbbi neen xamewul benn yoon boppam ci investiture yi ci liste faalewul premier militant président Macky Sall fii ci dëkk bu sell bi. dëkk bi bi dafa tàggatémbe. boo jëlee li ñuy wax compétence transférée mooy li nga xam ne ni sañ-sañ yi nga xam ne dañ koo jagleel collectivité locale yi domaine bu ci nekk ñun gisuñu ci résultat. parce que daf na huit ans daf na juróom ñett ñu yokkal ko yeneen trois ans muy ne nag dañoo ne dañ a war a tàbb pour que ñoom ñu nekk ay futurs conseillers maire bi moo nekkoon mandataire suñu parti yaakaar ni li doxale mbir yi suñu ay ndaw parti ñoom ñëpp la da la jël sànni leen fële ci da la jël également dalal yokk ci nii dafa jotoon mu daal di waxtaan ak ñi nga xamee ne ay militant président Macky Sall lañu àndoon ak moom ci waxtu wu jëkk wa kontaan ñu benn yoon rawatina ñi nga xamee ni xàmmeewuñu seen bopp ci liste électorale yi ñu déglu ci Abdoulaye Ndiaye Ngalgou nga nekk nit bu am ay principe nit bu am ay conviction nga nekkal fii le président Macky ba dara du woon dara ba mu méttee ba tey jii di jàppale le président di jàppale la coalition benn bokk yaakaar ñi nga xam ni tey ñoom ñoo fi nekkal le président nekk ay militant authentique bu APR jàpp naa ni 2017 bi ñu dugg si ñu engagé si politique bi ma egg Tivaouane ñu ne ma dafa am ñu bokk APR des militants authentiques yu mer frustré ni dañuy def vote sanction defuñu ko sax pour Macky Sall mais ko def pour ñi nga xam ne ñoo fi nekk bi ma ko déggee xaw ma leen yàlla xam na ko dama laaj seen numéro mu falu bi 2017 ñëw nga dañuy sanction le ko loolu àndul xam moom waroon dox. tii Vawan Babacar Sow dañu coo jokk ak yéen pour Sud FM. ñoo daal di dikk nag ci njeextalu juróom benneelu édition forum euh, bi collectif bi ëmb producteur yi exportateurs yi jiwu gerte gi daal di nag amal ngir euh, campagne bi aju ci njënd beeg njaay mi COPEGA bi nag am na yenn yu mu gis ne ci xeetu digle bu ko état bi doxalee mën na tax euh, secteur bi suqaliku bokk na ci ay ndaje yu yaatu yi nga xam ne dañ koy dakleel wàllu agriculture di wàllu. Euh, assise de l' agriculture waaye itam fexe ba comité national bi yore wàllu euh, njëkk yi di seeña ñu daal di koy nag euh, indi ci ay coppite décret bi teg texte yi nga xam ne itam moom la ñuy jëfandikoo ci wàllu yoon yooyu yëpp yu ñu war a rek xoolaat la ba ci taxe juróom benn dërëm bi nga xam ne ci produit yi gerte yooyu ñu génnee bitim réew dañ ko war a rek xoolaat COPEGA jàpp ne mën na joyanti bi le secteur Kaolack Mamadou Camara ñi nga xam ne ñoom ñooy jënd ko Sopega daal di am ay xalaat pour nag njënd ak njaayum gerte bi gën a aw yoon bokk na ci nee nañ war nañu ndëppalaat mbay mi fii ci Sénégal xoolaat seña bi nga xam ne moom mooy joxe prix ci njënd ak njaayum gerte li nga xam ne xaatimoon nañ ko muy décret wala lu ñu bind teg fi mu jëm ci wàllub njënd ak njaayum gerte ñu waxtaanee ko gën a yombal yenn doxali nii ci wàllum administration ak tamit douane pour nag ñi nga xam ne ñooy jaay gerte bitim réew réew bañ a am ay jafe-jafe yu tar mbirum taxe bi tamit nee nañ suñu sañoon ndax jamono ju ñu nekk métti na lool gën ko oyofal bokk na ci xalaat yi nga xam ne génnee na ci ndajeb COPEGA bi nga xam ne lëlub ñaari fan la ñu amaloon ko fii ci Kaolack wàllub njënd ak njaayum gerte bi ci atum ren gouverneur région bu Kaolack di Aline Badara Mbengue di dalal xel yi nee nañ sàcc yi doon am ak tamit di dogale wala di dem ci point de collecte yi di song ñi nga xam wàllu kaaraange gi jël nañ seeni motuwaay Alioune Badara Mbeng ut loo am da fi fekk gannaaw yàlla ñooy aar réew mi surtout ñooy aar ñi nga xam ne ñi ñooy yëngu ci wàllum njaayum gerte ñu ñun jël nañ ay mesures te ñu ngi koy waxtaanee fi ñu ko war a waxtaanee te dinañ ko jëfee ku nekk euh, xelam dal xam ne soobe yàlla dinañ protéger ñëpp ba campagne bi déroulé ci njëkk ak teraanga kenn du ci gaañ waaye nag lu jëm ci njaayum gerte gi ci bitim réew waa COPEGA yi wax nañ leen ko nee nañ bés bi ak weer bi nga xam ne war nañ tàmbali loolu doon na ba léegi gouvernement Sénégal jot na nag ñu yëkkati ci ay kàddu su ko defee ñu leeralal mbir moomu le Kaolack Mamadou Camara Sud FM Mamadou Camara jaajëfal ko ñu daal di wax ci wàllu nag euh, xëy mi fexe ba daal di euh, jàppale ñi nga xam ne ñooy yëngu ci jël ay emploi euh, rawatina jamono Covid 19 bi yenn ci ay digle yu bàyyi ko ci forum libéral libéral bi ñuy amal ci wàllu nag dialogue te fondation boobu di Neumann daal di koy nag woote thème ba ñu jëloon sax mooy wàllu koom-koom naka lañ koy daal di nag joyante gannaaw feebaru nag mbas mi programme yi ñuy teg itam ngir fexe wutam xëy yomb wàllu entre entrepreneuriat Hady Sène ci mbasum Covid 19 bi nag téeméeri entreprise yoo jël juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ya dañoo ami ay jafe-jafe bu ñu sukkandikoo ci ay ANST activités yi doxatul woon ñi ñàkk seen xëy bëri loolu ngir nag jàmbaarloo ak li ni mel taxawal sa bopp ab xëy wala am loo mën mun na nekk saafara bu ñu sukkandikoo ci Seydou Gueye di porte parole APR. ñu jógee ci logique gu damay wut xëy tàbbi ci logique gu damay fexe ba mën nu may xëyee sama xëyu bopp ba mën cee jël ñaar ak ñett bu fekkente yàlla def na barke ci li may def war na bokk ci réflexion bi nga xam ne tey jii nit ñi nañ ko fi amal pour seet xal yoon parce que auto emploi aussi axe bu essentiel la bu structural la bu important la boo xam ne dinañu mën a permettre ñu indi ay réponse waxuma nag ñëpp mun nañ nekk entrepreneur am na ñoo xam ni confort wu am lu ñuy fayeku weer moo leen am na ñoo xam ni am ubbeeku ak yéene pour wutal seen bopp te am na sëriñ bu mag bu doon wax ni gàttal sa wërsëg mun ta weesu xam weer bu dee looy fayeku loolu nag faw nguur gi jàpp si euh, fondation Noman di organisatrice su forum bi nga xamante ne at bu nekk ñu ngi koy amal foog ne rek ne lu ñu fiy jëlee dina am ay njeexital ci koom-koomu réew mi ñu ngi xaar nag ci bile waxtaan ay digtal yoo xamante ne nag dina mën a rek encourager wala sax développer li nga xamante ne mooy employabilité fii ci Sénégal ñu daal di wax nag ci tey bi ñuy dalal daluwaay euh, boobu euh, di institut bi yëngu ci wàllu défense maanaam aar réewum Sénégal njiitu réew mi daal di koy rek euh, jiite boobule jumtuwaay nag mu nga foofu ca Camp Leclerc dina mën a tax ñu tàggat ay officier d'état-major yi nga xam ne dinañ dugal seen loxo ci réew mi la muy daal di nag doxee rawatina lépp lu aju ci wàllu crise ak yu ci mel ni rek guerre institut bi nag daal nañuy teg yi di jalon yu jëkk yi Babacar Samb mu di jumtukaay xamante ni entreprise yu Sénégal ñoom ñoo ko daal di tabax ba mu mat sëkk institut de défense bu Sénégal di pôle d'excellence boo xamante ni dafay daal di gën a dëgëral lii di enseignement militaire supérieur di ponk boo xamante ni daanaka moom la ñu waroon a mottali ngir Sénégal gën moom boppam ci wàllum tàggatu officier yi bi la institut ñu daal di si nemmeeku benn école d'état-major école supérieure de guerre ak benn centre de doctrine boobu la établissement nga xamante ni vocation internationale li moo di tàggat occupé ay fonction ci seeni état-major ci jamonoy jàmm jafe-jafe ba ci jamonoy jàmmarloo waaye dina dugal loxoom itam ci ci bépp opération boo xamante ni day indi jàmm ci réew mi ba ci bitim réew dina tàggat itam suñu officier supérieur diplômé d'état-major ba ñu mën a matal bépp responsabilité de commandement ak direction ci pàccub armée ga nga xamante ni fa lañ daal di bokk ci ay organisme ba ci ay état-major interarmée yu daal di wër bitim réew ba yoo xamante daanaka soxla nañu leen fa ngir ñu daal di wéyal li ñuy dippee politique de défense institut de défense du Sénégal dina daal di taxaw itam ci liy gën a suqali si wàllum sàkkum xam-xam ak gëstu ci li nga xamante ni moo di pexe yu ñuy daal di tëral ci wàllum défense ak karange bile institut ñu daal di koy amalee ci jumtukaay yi gën a muccee ayib ñu daal di siy nemmeeku benn pôle administratif ak pédagogique benn bloc d'hébergement ab salle bu ñuy tàggatee yaram piscine ba ci salle de loisir ak restauration institut de défense bu Sénégal daal di tàmbale njàngam niki juróom benn fan ci weeru septembre atum 2021 ñu daal di koy placé ñu daal di koy placé ci tutelu jëriñ ju ñu denk wàllum forces armées mu war cee lëkkaloog naataangoom bi nga xamante ni moo daal di yor wàllum jàng mu kawe mi